سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني وأسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي سانت بروم بي سبحانه وتعالى ديكو ديلو واتشواي bi mu يلو ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang ak waa këram muy sunu yenent muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu deñ di dotti leeram fa moom ak njabootam ci biir loolu mbokk yi ñuy yëkkati kàddu muy jàmmi yàlla ak xéewalam yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dotti ci mboolee mi mindeefam mbokk yi ñu dellu siwaat ak yeen ci sunu jotaay bi ñu tuddee jotaayu weeru koor képp ku ñuy topp ñi ko doon amal bi weer bi teroo ba tey te bis bu nekk tey incha allah di tolloog sunu ñaar fukkeeli jotaay ak ñett di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu gën a tawfiiqal ay jaamam ku nekkoon ci weer bi day di nga na ni weer baa ngi tàggoo weeru barke mi ngi tàggoo weeru xéewal mi ngi tàggoo weer bu bari ay ngëneel mi ngi tàggoo ñu tollu ci fukki fan yi nga xam ni moo mujj ci weer bi kenn ku ci nekk war a takkuwaat daa di taxaw wara a dolli nag ay góor war wara xool naka lay gën a jege boroomam ba am ci xéewal yooyu am ci ngëneel yooyu waaye naka lay góor góorloo ci jéggalu ay bàkkaaram ba mu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di jéggal ñu set wicc ci ay bàkkaar ñuy ñaax sunu bopp di leen ñaax di wax na yow sama mbokkum jullit nanga góor góorlu bu baax ba occasion bu rëy bii nga lawaay bul ko rate na nga bàyyee xel sa bopp na tuub gën a sàkku sa njéggalu borom waaye na nga tuub gën a jege sa boroom na nga bëril looy sujjoot na nga bëri looy dellu ci téere borom bi subhaanahu wa waaye nanga nga bëril looy taxawee ay jëf yu baax ngir nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy am seen njéggalu boroom kon ñi ngi lay ñaax di ñaax sunu bopp rawatina sunu mbokk yu jigéen ñi waxtu bi nga xam ne lañuy ñuy war a góorgóorloo war a gën a góorgóorlu ci jege seen boroom ci jéggalu ko ci tuub dem ci moom waxtu yi nga xam ne lañuy tollool fukki fan yu mujj yi nga xam ne la cay ngëneel day gën a bari ndax xam ngeen ne fukki fan yii day guddi gi ñuy jeex ci la nekk muy guddib laylatul qadr di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu xéewalal ñu te wërsëgal ñu ko ñu mën a tolloo guddi googu wala mën cee tombe ba lépp lu ci yiw di ci ngëneel ñu bokk ci jaam yi nga xam ne dañu koy màng inchaa allah muy guddi yi nga xam ne moo gën ci guddi yi kon ñuy ñaan yàlla na borom bi subhaanahu wa taala tawfiqal ay jaamam kon takkuwaat day war dëgëraat day war góorgóorluwaat day war ndax xamoo ba xam sa occasion bii nga am mooy sa dernière occasion waaye xamoo ba xam dina la fi fekkaat am déet kon ngan la góor góorlu kon dina wax ne na nga góorluwaat bu baax te yokk taxawaay yi nga xam ne daf lay dimbali ëllëg sa kanamu boroom ku ñu doon topp ci weeru koor bi dafay fekk ne lu ëpp ci sunuy waxtaan mu ngi jëm ci wàllu jukko yi ndax ramadaan dey bokk na ci ay ngëneelam mooy jullit bi doon koo xam ne day góorgóorlu bu baax ci wàllu ay jukkoom waaye di góor góorgóorlu di yar boppam ngir ut ay jukko yu rafet waaye daw bépp jukko boo xam ne bu safaanu la tey nag inchaa allah tomb bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen mooy jullit bi mu doon koo xam ne day bàyyee xel boroomam day fàttaliku boroomam waaye ci di ko tudd di ko sàbbaal xam ngeen ne loolu day dafa bëri ay ngëneel waaye dafa bokk ci yi nga xam ne ëllëg dafa mën a jàppale jullit bi balance yiwam doon loo xam ne dafay fees dell ak ay yiw di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu tawfiiqal ñu ko waaye te wërsëgal ñu ko kon nga bàyyee xel yow jullit bi borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg jaamam yi di ko tudd waaye di ko bàkk waaye di ko kañ waaye di ko bàyyee xel borom bi nee na yaa ayyuha alladina aamanu udkuru llaha dikran mu ne wa sabbixuuhu bukratan wa asila kon ndekete loolu day wane ne borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg ay jaamam di ko tudd borom bi nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla mu ne dee leen may tudd lu bari waaye ngeen may sàbbaal ci suba ak ngoon kon loolu jaamu yàlla bi dafay am lum ciy jàngee te tudd borom bi dafay jural jaam bi mu jege boroomam daf koy jural borom bi gën koo yëkkati waaye daf koy jural ay jéggalu bàkkaar ci moom daf koy jural ay yiw yu fees dell ci miisaanul xasanaatam tey nag ñu ëpp ci ñun dañ cee sàggan ndax dañuy jël sunuy waxtu lu ci bari ñu koy def ci leneen ba ñu doon ñoo xam ne dañ koy fàttee tudd ba ñu doon ñoo xam ne dañuy xañ sunu bopp ay occasion yu mag waaye yu rëy rëy yoo xam ne dañ ko bàyyee xel ndaxte ki nga xam ne journéem yëpp daf ko paase moo xam dafa occupé moo xam occupé wul waaye soo moytuwul sax journéem mi ngi ko paase ci ay fawda mu doon ku sàggan ci bakkenam ba sax bàyyeewul xel ni ndekete moom am na occasion boo xam ne lu mu tënku-tënku mënoon na di tudd boroomam tey masalan jigéen bi nga xam ne tey mi ngi ci waañam bu ko neexoon mu doon koo xam ne day profitoo di istixfaar di bàkk boroomam di ko kañ di ko jéggalu di tuub di dellu ci moom waaye tey soxna si nga xam ne itam mi ngi jaay ci marché bi kazalika ndax la muy def loxo yaa koy def waaye gémmiñ nga moom kenn téyewu ko ak yeneen i mbir yoo xamante ne ay occasion la ci ñun waaye lu ci bëri dañuy sàggan ci bakken yi ba nga xam ne dañu koy rate noonu la la occasion boobu di rombee nga gis koo xamante ne moom boo moytuwul fa mu toog mu mënoon a tudd yàlla ma nga cay jëw mu ngi am ku muy seetaan koo xamante ne occasion ba ma ngi koy romb lu ko xañ mi ngi yëkkati téléphone am téléphone ba lan la koy yëkkatee mooy mi ngi mu jëw mi ngi ut ku muy wax ci moom wala ma ngay ut sax loo xamante ne ma ngi koy seetaan mu doon loo xam ne day xaraam ci moom kon kooku nga gis jamono ji nga xam ne la waroon a mën a profitoo am occasion boo xam ne daf koy jegeel boroomam jamono jooju ci lay sàggan ba ilie mu def mu doon loo xam ne day màng ay yiw profitoo ci occasion boobu waaye da ngay gis sàgganteem daf koy yóbbee moom màngul yiw waaye day màng bàkkaar te xam ngeen ne comme niñ ko waxee borom bi subhaanahu wa taala ku bëgg ku koy tudd la borom bi nee na والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما borom bi nee na ñi nga xam ne ñoo koy tudd ci ay góor ak jigéen doon ñoo xam ne dañu koy tudd borom bi subhaanahu wa na moom day dig na leen ak njéggal ak fay boo xam ne bu màgg lay doon kon ñaata njéggal nga xañ sa bopp ñaata fay ay yiw yu màgg yuy bàyyeekoo ci borom bi ay jaamam di ko am te amee wuñ ko lu dul tudd ko ñaata nga ci xañ sa bopp kon yow jaamu yàlla bi moo tax nga war a góor góorlu bu baax ci màng ay yiw waaye itam nga war a góor góorlu bu baax ci miinal sa làmmiñ muy tudd borom bi subhaanahu wa taala ndax bari na koo xam ne day toll ci sukkuraat bëgg a tudd yàlla wala ñu koy tuddloo làmmiñ bi da koy tële du ko mën ndax lu ëpp kat nit ki la mu nekkoon la làmmiñam miinoon mu tàmmal ko boppam su boobaa bu eggee fii loolu moom mooy répété wu lépp loo xam ne jéem na ko te fekk na nekkul woon di ko def su boobaa da koy jéem rek waaye du sotti ndax tey ay ñaata nit ñoo toll ci sukkuraat nga gis ñuy wax naka sudul noonu ñenn ñi dañuy saaga ñenn ñi seen làmmiñ di génnee loo xam ne kenn du ko gërëm wal iyaazu billah yow boo ko teewee sax da ngay am tiitaange ndax kii dangay xam ne mujjuwaayam nekkul mujjuwaay bu baax kon jëmuwaay ba du jëmuwaay bu baax nga gis koo xamante ne ci ay taasoog ay wayak yeneen yu yoo xamante ne lu doy waar lay doon bu ko defee yow da ngay am ñeewant te loolu fekk na moom ba muy dund la ko fàggu ba làmmiñ bi tey mënul wax lu dul la nga xamante ne moom la ko tàmmaloon kon ñu góorgóorlu bu baax ñu bokk ci ñi nga xam ne moom mooy almufarriduun yi mooy ñi nga xam ne dañoo beru di tudd borom bi di ko bàkk di ko kañ waaye di ko wéetal waaye di tuub di dellu ci moom moo tax dañu jëlee ci abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sabaqa almufarriduun qaalu wa mal mufarriduuna ya rasulallah qaal azzaakiruuna allaha wa zaakiraat dañu jële ci abi hurayrata yàlla na ko yàlla gërëm mu wax na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñii day jiitu nañ ñi jiitu ñooñu ñoom ñooy ñan moom mooy ñi beru ñi ñi ñi nga xam ne la ñu nekkee mooy jaamu yàlla ci wéetal ko ci tudd ko waaye ci saabal ko saxaaba yi daan ne ko ñi beru ñooñu te jiitu ñoom ñooy ñan yenent bi sallallahu alayhi wa mu ne ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari ci ay góor ak jigéen kon di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu bokk ci ñu koy tudd ñi nga xam ne bu ñu weetee dañuy weet ak borom bi subhaanahu wa waaye bu ñu wéttalikoo dañuy wéttalikoo ak borom bi subhaanahu wa taala ci tudd ko ci bàkk ko ci kañ ko waaye ci tuub ci dellu ci moom moom borom bi subhaanahu wa kon di wax ne ñu góorgóorluwaat ñu moytandiku lépp loo xam ne mooy sàggante ci di ñu xañ ay yiw ndekete jaamu yàlla bi dey ni mu mën a def ba màng ay yiw lu bari la ndax ñaata nit tey ñooy perte seeni temps ci waxtu boo xam ne mënoon nañ koo tuddee borom bi waaye mën nañ ko koo jéggaloo mën nañ cee utee ay yiw yu bari yoo xam ne dañ ciy am njéggalu seen borom comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala diggee waaye dañ ciy am ay fayam yu màgg yu kawe waaye dañ koy feesalee li nga xam ne mooy sunu balance yow ñaata ñaata mu doon loo xam ne itam daf ñuy jural ñu faral ñu ay bàkkaar ñaata kon ci jullit bi euh, lay am càggante boobu ci ñàkk a bàyyee xel boroomam waaye ci ñàkk kaa tudd waaye mu sàggan ci boppam ba xañ boppam ay yiw yu bari yoo xam ne ndekete mënoon na koo màng ci journée bi di wax ne day àllaaxira li fay jariñ nit ki moom mooy ay yiw yu bari di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu tawfiiqal ñu waaye mu taxawu ay jaamam te jéggal leen lépp loo xam ne njuumte la wala rëcc-rëcc di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp lu ñuy faqastalu ci jëf yu baax ci ut ay yiw yal na ko borom bi fulandi te nangul ñu ko kon di wax ne incha allah mbokk yi egsi nañu fii nga xam ne foofu la ñuy yëkkatee sunu jotaay di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiiqam di ñaan borom bi subhaanahu wa mu defal ñu lépp sunuy misaanul xasanaat kon incha allah lépp lu ci jub ci borom bi subhaanahu wa taala la muy tawfiqam ak ndimbalam lépp lu ci dëng day dellu ci ñun muy matadiwu doomu aadama ñu koy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala te di leen ko jéggalu jërë ngeen jëf ahsanallahu ilaykum assalaamu aleykum wa barakaatu سألت الله سألت الله